mbokki Sénégal yéen ñi doon jaaxle seen jaaxle jeex na déglu leen ma bu baax ma jox leen xibaar bu neex ak soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum boroom ruq bi yéen ñu am jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram am jafe-jafe àdduna solution fii la fekk baax soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane si Al ñëw na ngir indi leen saafara si seen bépp jafe-jafe moo xam dangaa bëgg seet wala nga bëgg listixaar xoolal bu wóor nag laa lay tegal nii ñëwal ci soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ndax listixaar bu wér te wóor la lay defal teg ci nag li ci gën a neex moo di mën nga toog fa nga toog woote téléphone ñu defal la listixaar bu leer nañ soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum borom ruqu bi jàmbaar dëgg la léppam nag mu teg ko ci mbiru taalibe moo tax bu sa yaram jaxasoo nga yëg ci lu diis wala nga mel ni ku tëju soxla ubbeeku jokkul ak soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bayre moom moo ma ci doy yéen ñi am jafe-jafe kayit di def ay concours mu dëgër lool lool wala nga bëgg tukki mu jafe la lool kaay ci soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla defal na ko ci tawfeex moom laa duppee solution ndax jafe-jafe boo mënti am bu jëflantee ak soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane si Al borom ruq bi ay solution kese nga ciy gis adresse am mu ngi ci diwaanu Kër Massar numéro téléphone am di 70 907 46 73 ak soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum listixaar bu wóor ak ñaan ngir nga am tawfeex fii la fekk baax jaaraama soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalate leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook Le Quotidien yéenekaay mi deesuwaat ci coow lu rëy li nga xamante ni mu ci Sénégal di révélation yi nga xamante ni maître ko ci exploitation jamaa yi di ci tuumal Aly Ngouille Ndiaye état bu Sénégal ak seeni collaborateur yéenekaay mu ngi xamal ne coow li nag ñu ki démb mujjee naa teere gi ca loxoy yoon ndax Aly Ngouille yi porte na plainte procureur moom tamit autosaisiru na jël dossier bi au na ngir lépp mën a leer bu dee dinañu nañu yi nga xamante ni moom la maître Moussa Diop yëkkati jàpp na lépp ay tuuma la dara du ci dëgg moom maître Moussa Diop nag ni ki démb lañ ko convoqué ca sûreté urbaine beneen scandale yéeni kaay bi dees ci di ci tudd yeneen i candidat te mooy Mimi Touré ak Mame Boye Diao ay tuuma lañu jël teg seen kaw ne fichier électoral bi nag ñoom dañ ko doon trafiqué di jël xaalis teg ko ci table bi ngir mën ko jot lépp ñeel mbirum parrainage bi yëfee tamit yoon dugal na ci loxoom libération yéeni kaay moom ubbi xët bu yaatu jaglal ko coowal maître Moussa Diop bi nga xamante ni jamono ji yëfee daa mujjee ëppee loxo moom maître Moussa Diop ni ki démb lañ ko placé en garde à vue gannaaw ba ñu ko convoqué ca sûreté urbaine la tukkee ca enquête bi nag yéenekaay bi def na ci révélation yu rëy di ñu xamal ni maître Moussa Diop virgule laa la wax changé wu ko ci ay kàddoom dil bii nekk ci exploitation suñu jamono yii nee mu ngi nekk ci diggante état bu Sénégal Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran mi ngi assumé nag bépp kàddu goo xamante ni yëkkati woon na ko rawatina ca conférence de na ay document tamit teg ko ci table bi ba noppi nag ne duma leen wax sama source lii moo tax ñu mujjee jël nag ay ko ci ndoddam bokk na ci diffusion de fausses nouvelles ba noppi nag daat koy placé en garde à vue ni démb laa la wax ci ay xaaju guddi ci la enquête bi soog a jeex ci wet ga Mimi Touré ak Guy Marius Sagna ñoom ñu ngi sàkku ci ne mu gën a gaawee commission d' enquête ci assemblée nationale ngir ñu mën a càmbar nag dossier bi askan bi mën a xam nag ndax dañoo cëqat cëqatee jaman Sénégal yi waaw wala déet bu dee Mimran moom la mu jàpp mooy maître Moussa Diop ci ay imagination taxawul ci dara yéenekaay bi en tout ko tribunal bu Dakar lijjante na lu jëm ci wàllu radiation gannaaw ba cour suprême nag kase décision bi nga xam ne juge Sabassy Faye jëloon na ko pour ñu dugaloon Ousmane Sonko mi ci fichier électoral bi audience bi nag ni ki tey ci mardi ji lay am ci tribunal bu Dakar leader yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko di sàkku nag mobilisation bu rëy ca tribunal ba xale yépp mën a ñëw assister nag audience bi El Malick Ndiaye ci kàddoom di Ousmane Sonko li ñuy sàkku nag jamono ji moo di ngeen dem récupérer ji seen carte électeur ndax mi ngi fees dele nag ci préfecture yi en tout cas lii xeeñ ci ndakaaru njaay moom ah neexul de ndax déjà autorités yi laa la wax interdit nañu deux roues yi ñu daw tay ji comme nam daan demee nag ci procès Ousmane Sonko yi bés bi le jour moom def taxaw seetlu ci contrat jaman yi nga xamante ne ni fi mu toll nii laa la wax mu ngi bëgg lëmbe réew mi gannaaw tuuma yu rëy yi nga xamante ni yoon waaye bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi maître Moussa Diop naa wax ci dossier bi laa la wax invité woon nañ ko ci E-Media waaye fa la maître Moussa Diop njëkk a waxee nag exploitation jamaa bi doon ci indi nag ay précision li ki démb la procureur dugal loxoom nag ci coow li ñu jële ji maître Moussa Diop déglu ko ba noppi daat koy placé en garde à vue ba jamono ji ñu wax ak yéen laa la wax mu ngi ci loxo takk der yi ministère des mines moom nag weddi na li jëm ci côtéem Mimran tamit waxi noppi ba noppi plainte yi jamono ji mu ngi mel nettul leeg male ndax Aly Ngouille Ndiaye porté na plainte Mimran porté na plainte ñu taxawal benn commission d'enquête ci na mu gën a gaawee assemblée nationale pour askan bii mën a xam lan moo xew ci exploitation jamaa yi le point actu ne président Macky Sall nekku fi coowal jamaa bii laa la wax fekk ko ci biir réew mi ab réunion la amoon ci 64e sommet de la CEDEAO waaye dem directement ca Doha lijjanti ji kaawu Karim Wade yéenekaay bi ne président Macky Sall mu nga ca Qatar jamono ji laa la wax en urgence waxtaan boo xamante ni war na koo séq ak émir ba di njiital réewu Qatar la ñu ciy gën a séntu nag moo di kaawu Karim Wade pour mu gaaw ñibbisi ci réew mi lii moo tax mu daal di sacrifié wu sommet bi nga xamante ni CEDEAO doon nañ ko def wuyu ko dem ca Qatar ba tey yéenikaay bi duñu xamal ne Karim Meïssa Wade moom la kenn xamul na fu mu féete fi toll nii tekkateekaar la def laa la wax kenn mënu koo gis li mu nekk duwaa lépp na communication moom zéro bu demee bay communiquer sax day bind kenn xamul ci lu mu nekk lii ko tëjee ne ki bëgg a xam kay ci lu mu nekk du kenn ku dul Ousmane mi nga xam ne jamono ji ci sànni tàccoom la toll de ndax talaata ak tey nag lay lépp a xam Mbàkke Fay jëloon moom la dëggal waaw wala déet en tout cas moom cour suprême daf koo mujjoon a kase ci période boo xamante ni ay jour donga ci des nag ñu jeexal dépôt de parrainage yi Ousmane Sonko ba léegi si mu ngi jaabante ci wàllum yoon Vox Populi di ko dëggal na tey nag mën na am sens moom Ousmane Sonko ñu daat koy libéré benn yoon mu jeex maanaam dugalaat ko ci fichier électoral yi comme ça mu am accès nag ci fiche de parrainage yi war a mën ñu jëm waaye yi de ñu ngi joxante rendez-vous laa la wax ci tribunal bu Dakar sàkku ci yi ñu fekk leen foofu di xam le ci biir yéenekaay bi ne tey moom yaakaar nañ ne dëgg dina jub ca tribunal ba comme ça Ousmane mën a jot ay àqam comme ni ko yeneen candidat yi jotee nag nekk ci terrain bi waa Lacoste di allié Ousmane Sonko yi ñoom vigilance la ñuy defim toll nii te ndaw ñiy toog di déglu na coalition Sonko 2024 ga yéenekaay bi deesuwaat ci dossier bi nga xamante ni jamono ji mu ngi bëgg a dëkk bi ñeel exploitation sunu jamaa yi yéenekaay bi dañu Aly Ngouille Ndiaye dafa déposé woon plainte Guy Marius Sagna tamit moom li mu bëgg mooy député yi jël seen responsabilité ñu taxawal commission d'enquête parlementaire ci na mu gën a gaawee xool ndax lii ñu tuumaal nguurug Sénégal gii dëgg la wala déet la ñu ci mën a conclure nag su boobaa dinañ ko wax askan bi ministre des mines moom la mu xam moo di dara du ci dëgg permis d'exploitation jamaa laa la wax la état Sénégal joxewul kon ku fi wax ne am déposé ñeel accusation yi nga xamante ni def nañ ko ci seen dodd ñoom jàpp nañ ne dara du ci dëgg dèjà kii tuuma nag indiwul ay preuve yu palpable yu ñu vérifié mën ko teg ci table bi alerte yi ne moom mel na kuy def alerte ci douane France ne ba léegi si candidat wu benn bokk yaakaar ba mu nga fa Amadou Ba mu ngay lëmbe laa la wax biir Paris gannaaw premier ministre ba mu jàkkaarloo woon def meeting ba noppi na commencé jël ay audience ñi ki démb ki fi nekkoon président la république di Abdou Diouf moom Amadou ak moom waxtaan wu yaatu woo xamante ne ni moom candidat wu benn bokk yaakaar bi nee na jëlewu lu dul ngëneel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 Ndakaaru bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li leen ak Cheikh numéro bi di plus 34 602 ñu nekk ci diwaanu France Paris ak ko wër woote leen ci plus 33 744